إنك الهادي المزيد أذهب قولا لسوانا كل من ليس يكون موقفا يا سلسبا أذهب قولا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سلسبا حمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور وترات كل يوم بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور قل يا ولي يا بديع يا نزير للمؤمنين إنك الهادي المزيد ci teraanga nee na sa jikko ju rafet ak sa mbaax yërmande ji nga ëmbal jàmm ñi ak wàcc gi nga wàcc sa bopp looloo looloo ko neex ci sa jëm waaw ndax ni nga koy toppee moom mu ngi lay topp waaye xam na ni ni xolam bi mel ci mbaax noonu la soxal mel démb rek bi ma ñëwee ba jox la loxo li mu njëkk a wax mooy ne da nga ne ma neel cheikh bi ñaari mbubb yu jot naa ci waaw naa ci lool ñu waxtaan waxtaan wu yaatu nga génn ci pénc mi mbooloo mi dal mu mel ni Serigne Cheikh daal daa ñëwaat jamono nga toog ci dégg pénc mi taalibe yi sa jëmmi ji kap jaaragul fenn wàccagul fenn ci yow mi la wàcc ngir cofeel gu am ci yow ngir bëgg gu am ci yow bu ko mënoon bu ko mënoon weer wu jot danga ko gis mu ànd ak yow cant gi ndax ndax moom li ko Cheikh Modou Mountakha wax barki dem ni ko sama kóllëre ak yow maa ngi koy fiddi daaw dafa jox Cheikh Mbacke Sylla mii fukki laadum mu yót ko Cheikh Mountakha fukki laadum yoo xam ne benn bu ci ne la muy jar Mbacke yu fay barki dem Masalikul Jinaan ne nee na ko politiciens yi fi jaar am na ci ñoo xam ne bi élection bi jàllee bi muy ñëw kenn ku ñu dangaa indi xar ndax boobu élection yaa ngi dëgg ma waaye tabaski bii bi mag yi fay di lim ke mu njëkk lim daf ni gannaaw moom Cheikh Alassane Ka bu fi indi am xaram daal ni kon li muy def yàlla tax yëf yi jàll rek mu tee am xaram te at mu jot ñoo ko yóbbu defal ko kilifa diine yi ñëpp kon loolu la Cheikh Mouhamadoul Mountakha wax Cheikh Bass mu Cheikh Abdoul Khadir ni ko mun de xaw ma lu ma lay fay li ma lebal ci àddina li nga ma lebal xaw ma kañ laa la koy fay waaye gëm naa ni de ku bëgg Serigne Touba daani ko li ma gën a neex sax mooy dégg gi nga dégg Serigne Touba moo ma neex moo ma yëm ci yow ndax yow da dégg Serigne Touba la ko wax loolu Cheikh Bassirou ko wax te te mu ngi ci réseaux sociaux yi di dem kon lii nga wax ni yaa ngi koy topp xool ko moom it noonu la amee ci yow cofee noonu la la bëgg seen ànd bi daal yàlla na nee na ñu ngi julli ci sangu-sang yi di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ngi dellu di waxaat jërëjëfe Serigne Touba nee mu ngi santaat yàlla daaw ndege ndege waxtu wi nee na daaw ndege ne waxtu wi mu ngi doon taw sax nee mu ngi doon taw maa ngi fii nee mu ngi woon fii te bi muy jóg Dakar aussi nee na moom képp moo ko yëkkati woon. ne bi mu génnee ci bunt bi. la ma Ibrahima Gueye. la ko Ibrahima Gueye. ñaan pour mu jaar seet ay waajuram. ñaan pour mu jaar seet ay waajuram. ne ba ma ca jógee. ne ba mu ca jógee. dama ñibbiwaat. dafa ñibbiwaat. ren tamit. ren tamit. bi may jóg léegi. bi may jóg léegi. yaa ma yëkkati. yaa ko yëkkati. ma fi jógee woon. ne su fi jógee woon. dama ne woon damay dafa ne woon damay ñibbiwaat Dakar. maa ngi ñaan ma ne yàlla bu ma Ibrahima wax nañu jaar seet ay waajuram. ne mi ngi ñaan naan waa Ibrahima de yàlla ba mu ni ma waaw comme que daaw. yàlla ba mu ni ma nan fa jarat may dugg rek ne ma waa kër gaa ngi lay xaar. ne may dugg rek mu ni ma waa kër gaa ngi lay xaar. mu ne kon foofu ma jaar fa. sëriñ bi sëriñ bi. maa ngi lay nuyu di la ziyaara. nee na mi ngi lay nuyu di la ziyaara. di ziyaara sa sa sa ngi ziyaara. saraki yu baax yi rawatina sëñ xaadim mi toog suñu ko tuddee moom sëñ xaadim ne suñu ko tuddee moom sëñ xaadim tudd nañu ñëpp ne tudd nañu ñëpp di ziar mbokki taalibe na mu ngi ziar mbokki taalibe di delluwaat di ñaanal Cheikh Béthio ne mu ngi dellu di ñaanal Cheikh Béthio suñu waajur nee na suñu waajur yal na yàlla yokk leer ci moom yal yàlla yokk leer ca di santaat nag nee na mu ngi santaat sëriñ Saliou Mbacké sëriñ Saliou Mbacké mi nga xamante mi nga xamante ni yëkkati baat yu Serigne Saliou ndigal yëkkati jiital ko ci nee jiital ko ci bi may ñëw léegi nee bi muy ñëw léegi damay liir benn benn téere nee na dafay liir benn téere bu professeur Baba Kake bind nee na bu professeur ba Baba Kake bind Guinée la nee na Guinée yàlla dafa wax ne laataa ñuy yóbbu Serigne Touba ci exil bi hmm. laataa ñuy yóbbu Serigne Touba ci exil bi mu ne yi dañu dañu waxtaan seen biir mu ni colon yi dañoo waxtaan ci seen biir ñu nañ ko koñe. mu ni nanu ko koñe. ci ci tëdduwaay bu baax. ci tëdduwaay bu baax. ci lekk. ci lekk. ak ci loo xamante ne dafay mel ni prestige ci nit. ak ci loo xam ni dafay mel ni. prestige prestige ci nit. te ba ñuy def loolu ñoom. nee na ba def loolu. dañoo fàtte ni. dañoo fàtte ni. ñett yi yëpp. ñett yi yëpp. ko dëddu. Serigne Touba daf mooy lekk gu neex. njaboot. muy njaboot. muy prestige. muy prestige. yooyu daf ko dëdd. nee na yooyu daf ko dëdd. fu ñu ko waroon kare. nee na fu ñu ko waroon a kare. waroon ko fa koñe. waroon ko faa koñe. xel pexe yeggu fa. nee na xel ak pexe yeggu fa. muy digganteem ak boromam. mooy digganteem ak boromam. mooy digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bi ma xoolee gëléem yi. nee na di dugg fii. bërki démb nee na bërki démb may xool seen bët yi di daje ci kaw nee na muy xool seen bët yi di daje ci kaw yàlla seede na nee na yàlla seede na ni sama xel yëpp xelam yëpp dafa jàpp dafa jàpp bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi sallallahu alayhi di dugg Medine di di dugg Medine ci taala al badru ci taala al badru waaw foofu sama sama xel dafa xelam daa sori lool waaw xool jàmbaar bi def ne ma xool ni jàmbaar bi def lii. su fekkul woon mu am ay kanu yu dëgër. su fekkul mu am ay kanu yu dëgër. du mën a mën a yëkkati lii mu yëkkati. ne du mën a yëkkati nag lii mu yëkkati. moo tax Serigne Saliou. moo tax Serigne Saliou. yow modèle nga ak référence ci réew mi. nee na yow model nga référence nga nag ci réew mi. ci sa taxawaay. ci sa taxawaay. ci sa oyof. sa woyof. ci sa yar ak sa teggin. ci sa yar ak sa teggin. dafa am benn baat bu ñuy wax ci alquran. ne dafa am benn baat bu ñuy wax ci alquran. inna allaha maa sabirin. inna allaha maa sabirin. ñu koy tekkee. nee na ñu di ko tekkee. ci nasaraan. ci nasaraan. Dieu est avec les patients. Dieu est avec les patients. waaye waaye wax ji. gën na xóot les patients. nee na gën naa xóot les soo koy xool bu baax. soo koy xool bu baax. dafa wax ne. dafa wax ni. sabirin boobu mu wax. nee nee nee na sabirina boobu mu wax. mooy tekki mooy tekki yàlla mi ngi ànd ak yàlla mi ngi ànd ak ñu nee na ñi nga xam ni duñu onk te foofu nga taxaw te foofu nga taxawee moo tax ànd ak yow nee ànd ak yow nekk ak yow ci kóllëre nee na nekk ak yow ci kóllëre lu lu saf la nee lu nu neex la lu neexit mi la nee na lu neexit réew mi la donc dañuy ngi santaat yàlla bu baax nee bi ñu tombee nag ci màggal gi sëriñ tuba muy màggaluk sëriñ Touba dafa wax dafa wax nazaxtu bi sukri sikaayatan nazaxtu bi sukri sikaayatan mu ne jëndee na lépp luy jàmbat nee na jëndee na lépp luy jàmbat ak cant cant te foofu nga taxaw te nee na foofu nga taxaw du bis bi rek nee na du bi rek nga yëkkati sant nag sant sunu borom nga dëkkee. nee moom nga dëkke ba mu nekk sa nee na ba mu nekk nag sa identité. nee ñu ngi lay santaat bu wér. di ñaan yàlla. mu ngi ñaan yàlla. nee na mu dolli yëkkati la. moom rek moo mën. nee na yàlla rek a mën. moom rek moo sañ. nee na yàlla ci boppam moo sañ. benn aaya ci surat Baqara. nee na benn aaya ci suuratul Baqara. su ma juumulee téeméer la ak juróom-ñett juumul téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn. foofu da ngay gis élégance su sunu borom. nee na foofu da ngay gis élégance su sunu borom. wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni xaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun d'abord yàlla. nee na d'abord yàlla. mi ngi mi ngi mi ngi wax ne képp ku ko woo jaamam. nee mi ngi wax ni képp ku ko woo. jaamam muy jaamam. mu ngi wuyu mu ngi ci jamono ci jamono. bi nga ko woowee bi ko woowee moom yàlla. fa mu mujjee nag. nee na fa mu mujjee. mooy mu doog a wax na wuyu leen ci sama woote man. mu doog a wax moom yàlla ni wuyu ji leen ci sama woote. te loolu nga dëkki sëriñ bi. te loolu nga dëkki sëriñ bi. yal na yàlla fay la. yal yàlla fay la. ngan googu nag wax. nee ngan googu nag nga wax. ah loolu de bis du ko gën a rëy ci nee na bis daal du ko gën a rëy ci ñun. dafay nekk sa loxo rek. ne dafay nekk ci sa loxo nee na nekk ci sa emploi du temps nee nee na noo ko xalaatee nee na noo ko waajale nee na bis bu yembee wa waay waay nag ñu dal di koy def waay waay lal tapis rouge yi nee teeru la nag ni teeroo buur nee na nee na sa wëllëre ak moom nee na lu rëy la ñëpp ko xam beneen bi aussi beneen bi aussi sëriñ bi sëriñ bi li ëpp solo. dama am sax exemple bu ma lay nee dafa am exemple bu mu lay wax. dafa am benn waay bu yor télé ci réew mi. Hmm. dafa am benn waay bu yor télé nag ci réew mi. am na ñeenti at ci ginnaaw. Hmm. nee am na ñeenti at ci gannaaw. ma ay yére ci réew hmm. nee na mu wutoon ay yére nag ci réew naar yi. yónnee ko ko. na yónnee ko ko. pour wax dëkk mu pour wax nag dëkk bi ni mu mel. benn xaritam bi mu waxee xarit. Cheikh Alassane moo ko jëlee fële may ma. nee na bi mu waxee benn xaritam ni ko yére yi daal Cheikh Alassane Sène moo ko jëlee ci dëkk naar yi may ma. mu ne ko mu ne ko xoolal. léegi mu la service. léegi mu ñaan la service. loolu loolu ñeenti at la ci gannaaw. nee na loolu ñeenti at la ci gannaaw. ñu doxaat nee ñu doxaat. ñaanuma service. nee na ñaanul service. ma téye kóllëre gi rek nee na mu téye kóllëre gi. yónneewaat ko leneen. nee ko leneen. ne di ko ko yónnee. ci ñeenti at yi. ci ñeenti at yi suma ko wax service ba fan yi ñu génn ba fan yi ñu génn mu dog ko nettali nee dama lay suivre nag di xool di xool lañ ma waxoon di xool nag ah lan ma waxoon ci yow damaa dem sax ba am kersa damaa dem sax ba am kersa parce que musoo ma wax musoo ma wax sa service musul am sama xel dellu ci Abdoulaye Wade. nee na xelam nag dellu nag ci Abdoulaye Wade. nee na ma dafa am loo xam ne day résonné sama bopp te mag laa te mënul fexe ba jóg si sama bopp. mu ni ko damaa dafa am luy résonné ci sama bopp te man may mag te loolu ba léegi mun a génn ci sama bopp. benn sénégalais bu dëkkoon Londres. nee na benn sénégalais bu dëkkoon Londres. nekk dans le marché boursier. nee na nekk dans le marché boursier. dafa am Sénégal lu mu soxla ci koom. nee dafa am Sénégal nag lu mu soxla ci koom. ñu wax ko waa jooju. na ñu wax ko waa waa ji toppatool ko Sénégal ci 24 heures. nee na waa ji toppatool ko nag Sénégal ci 24 heures. war war cee am commission nag 10 milliards. jotatuñu waa ji nee na jotatuñu waa ji. un an après. un an après. Abdoulaye Wade dem Paris. dem Paris. nekk ci hôtel bi. nekk ci hôtel bi. dajeeg waa ji nee na dajeeg waa ci loxo nee na téye ci loxo. ne yow sa xaalis mi ngi ci ñun ni ko yow sa xaalis mi ngi ci ñun boobu ba léegi. waxuma sax lool dama bëgg nga wax ma li nga soxla ma taxaw ci waaw waaw <laughs> dëgg la ne waa ji ne ko jërëjëf président mais mais malheureusement sama soxla nag wax na ko yàlla ba noppi mënu ma ko waxaat keneen Ablaye Wade ni ko wax yàlla waaw waaye waaye ñu ni ñu fajal la aussi nee na mu jaar ci sama loxo mu ni déedéet président man tafoog sama borom la bëgg ne moom lay xencu saa su ne ne loolu la waa ji wax président Abdoulaye Wade ne fi mu daanele euh, dafa am benn jigéen ne dafa am benn jigéen buy sàmm ay bëy buy sàmm ay bëy ay xar ay xar ak ay bukki ak ay bukki ci benn enclos nee na ci benn enclos waaye utalu leen séparation waaye nag utalu leen ak séparation te xam nga bukki du xam nga ni bukki du dëkk ak xar du ak bëy du dëkk ak bëy waa dëkk ba waa dëkk ba. jaaxle ca loola jaaxle nag ca loola. daal di wax ne faaw ñu dem ci ndaw si. daal di wax nag faw nag ñu dem ci ci ndaw si. laaj ko laaj ko. lan moo indi. lan moo indi. ba bukki bi ba bi. lekkul xar yi. lekkul xar yi. lekkul béy lekkul béy yi. dem seeti ndaw nee na ñu dem nag seeti ndaw si. laaj ko laaj ko. ndaw si ne nee ndaw si ni. saa yu ma yeewoo. saa yu ma yeewoo. maa ngi jéem maa ngi jéem. élégant élégant. sama borom ak sama borom. mu ne yàlla di ma ko fayee. ne yàlla di ma ko fayee. rabu àll yi ma boole. rabu àll yi ma boole. nee na ñu élégance ma nag. élégance seen biir. nee na ah eh, rab yi ci boppam ñoo élégant nag ci seen biir. ci seen biir ñoom. te sëriñ bi. sa digganteeg taalibe yi. nee sa digganteeg taalibe yi. def nga ci élégance. def nga ci élégance. bu mat sëkk bu mat sëkk. sa digganteeg sa njaboot. nee na sa digganteeg sa njaboot. sëñ xaadim mu ngi nii toog. sëñ xaadim mu ngi nii toog. nit ki nit ki. mën naa lem ay tànkam. mën naa lem ay tànkam. waaye dafa am benn bu yàlla wax. ne dafa am benn aaya bu yàlla wax. siimaahum siimaahum. fii wujuuhihim fii wujuuhihim. min asari sujud min asari sujud. soo xoolee sëñ xaadim. ne soo xoolee sëñ xaadim. toog na lem na ay oomam ci sa kanam. nee na toog na lem na ay ci sa kanam. mais kanam gi nangu na. waaye kanam gi nag nangu na. donc foofu lay daaneel wax. waay waay ne foofu ne mu ngi lay santaat bu wér. mu ngi ñaan yàlla nga yàgg fi. mu ngi ñaan yàlla yàgg fi. sa taxawaay fulandi taxawaay yàlla na ko yàlla fulandi màggalu déwén bi ne màggalu déwén loo def ci ren jii loo def ci ren jii yàlla na nga def lu ëpp loolu yàlla na nga def lu ëpp loolu lu ëpp téeméeri yoon ne lu ëpp téeméeri yoon yàlla mën na ko yàlla mën na ko te yaa nga ca yoon boobu te yaa nga ca yoon boobu te réew mi yëpp te réew mi yëpp yëg nañu ko man ba ma toogee sax ne bi mu toogee gisaguma nag yi ñëw ne gisaguma nag yi ñëw ne aw ma ci jaaxle de ah déedéet déedéet dëgg la da nga mën a yor liggéey bu toll nii ne da nga mën a yor nag liggéey bu toll nii am ngërëmal Serigne Touba am ngërëmal Serigne Touba am ngërëmal njabootu Serigne Touba am ngërëmal njabootu Serigne Touba nga xamante ne nga xamante ni bi Cheikh Béthio wane laqo ne bi Cheikh Béthio laqo soo amul woon ndimbalu suñu borom ne bu amul woon ndimbalu yàlla fissure mën na am sa digganteeg njabootu Serigne Touba. nee na fissure mën na am sa digganteeg njabootu. nga topp ndigal. nee na nga topp ndigal. ndigal loolu. ndigal loolu su jurul li tey nee su jurul li tey. munul jur leneen nee munul jur leneen. donc sant oh na ne sant na la bu baax. alxaqu min rabbikum ne alxaqu min rabbikum. fa man shaa fal yu'min. fa man shaa fal yu'min. wa man shaa fal yakfur. wa man shaa fal yakfur. wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. nee sagoon nañu ko. ne mu ngi nuyu ñi nga àndal ñëpp kilifa yi ne képp ko àndal maa ngi lay nuyu nee na di la wax nag sama mbég nee na mi ngi rafetlu nag kaddu yi nee na yaatu na waaye bari na nag enseignement nee na lal na xam-xam ne ku la dégg nga wax ne xam ni borom tawxiit nga loolu nag daa doy sëkk soo waxee wolof dafa wax dafa wax. boo waxee boo waxee feeñ. yow nag feeñ nga. saa soo yëkkatee kaddu. ne nee na du ñu bëgg sax nga daan wax ji. njariñ lu mu làmb. njariñ lu mu làmb. kawe na nañ kawe na. sant nañu ci nee sant nañu ci. li nga ma fi wax yëpp nee li nga ma fi wax lépp. lu ëpp loolu nee na lu ëpp loolu. moo nekk ci yow. maa ngi fas kóllëre maa ngi fas nag kóllëre gi. nee na di ko jàpp. fii nga ñëw nee fii nga ñëw. day barabub sëriñ. nee day barabub sëriñ bi. di sëriñ Saliou. nee na di barabub sëriñ Saliou. sëriñ Saliou sëriñ Saliou. kenn ëmpalewu kenn ëmpalewu ko. mooy sëriñ Touba mooy sëriñ Touba. fa mu jaar ak góor ga. fa mu jaar ak góor ga. taarix nettali na lu ne. nag lu ne. ñu jëkkoon ñu jëkkoon. sax nettali na. nee na sax nañu ko. waaye waaye. fa mu jaar ak sëriñ fa mu jaar ak sëriñ Saliou. li ci li ci ñëw lépp. ne li ci ñëw lépp. monsieur nopp musu ko dégg. ne nopp musu ko dégg. moom foo xam. ne jaar naa moom foo xam ni. moo indi lii moo indi lii indi. moo indi. ñu toog ñu toog. naan ma naan ma. yow de yow de nangam nangam. nangam di gis ci na di gis ci man. ak mbaax mbaax. di gis ci man ci man. ak woyof di gis ci man di gis ci man. lu ñuy tuddee kéemaan nee na lu ñuy tuddee kéemaan. kooka kooka. moo liggéey liggéey moo liggéey nag liggéey bi wallaahi. moo ñu dimbali moo ñu dimbali. fekk ñu nee fekk nu. fu nee na fekk nag fu dara newul. mu def ko mu def ko fa. màggal gii nga màggal gii nga ñëw. moo ko digle woon moo ko digle woon. Serigne Saliou Serigne moo ni cheikh moo ni cheikh bi. na nga wax sa njaboot na nga wax sa njaboot. wax say taalibe wax say taalibe. nañu fonk nañu màggal gi. daal ko def naa sama màggal. mu ne daal di ko nag def naa sama màggal. muy sag màggal muy sag màggal. moo indi dayo moo indi nag dayo bii. xam nga màggal xam nga màggal. mënee su ko def ta tuddoo Serigne Cheikh Béthio. li mu fi def ci màggal ne li fi def ci màggal mi ngi fi. mënee su fee def mënee su fee def. dara loo xam loo xam ni. defu ko ci màggal ah Serigne Cheikh nag defu ko ci màggal dëgg la. kon cant gu rëy googu. ne cant googu. lanu am moo nu fees ba ku nu fekk si ci loolu lu nu man lu nu man ci tatagal lu nu man ci ànd ak yow danañ ko def ndax amuñu lu dul ndax amuñu lu dul loolu te fonk nga ko cheikh bi ci boppam nee bi ci boppam sa cofeel ci moom jiitu na jiitu na sama relation ak yow dëgg la post Facebook nee na post Facebook bi keroog bañ ko ne keroog bi bi ñu ko téyee. ak keroog bi mu génnee àddina. ak keroog bi mu génnee àddina. soppi jotaayam ne soppi jotaayam ba. sa post Facebook. ne sa post Facebook yi. la nga wax ci moom la nga wax ca moom. ku ko revisité nee na ku ko revisité revisité tawaat. sa toogaay bi ne sa toogaay bi. dana xam la ne ne nee na dana xam lan la wax. ak cofeel rek nee na ak cofeel képp moo ko waral. cofeel rek ne waay waay waay waay ne cofeel képp. cofeel rek nga ko ëmbal ne cofeel képp nga ko ëmbal. maa ngi lay sant mu ngi lay sant. maa ngi feddali kóllëre mu ngi feddali kóllëre gi. di ko fas yéene jàpp ne di ko fas yéene jàpp. te fas koo ànd nee na fas yéene koo ànd ak yow. jóge bi nga jóge saw. ne jóge bi nga jóge saw. ci jamono ju xat. ci jamono ju xat ji. ne ñëw fekk si ko. sant naa sant naa ci. sagal sagal nga ma. maa ngi ñaan Serigne Touba maa ngi ñaan Serigne Touba. sàmm sàmm la. defal la tawfeex nee defal la tawfeex aar la aar la suturaal la nee suturaal la dolli xéewal yi nee dolli xéewal yi nee na ba ba ba ñu teewe ko ne nee te déwén nag dàqal lu raj nee ci barkeb Serigne Saliou nee eh, cantug njaboot gépp nee cantug njaboot gépp nee ay taalibeem la toogal ñii nekk bitim réew nee na ñii nekk ci biir réew mi bi ñuy dugg si délégation bu représenté Ousmane Sonko. nee na délégation représenté Ousmane Sonko. moo fi nekkoon moo fi nekkoon. moom moom la doon waxal noonu. fu nekk nit jóge nee na fu nekk nit jóge na fa. ñëw fii ñëw fii. siyaar senu. nee ta tagal nu. ndax comme Cheikh Béthio. ndax Serigne Cheikh Béthio. moom rek la ñu fas yéene nekkal. moom rek la ñu fas yéene nekkal. ab taalibe képp lan def sunu bopp. ne fa sunoo yéene gis sunu bopp ci liggéey bi. ko jaam danañ ko jaamu danañ ko àndandoo danañ ko ànd ak mbokki taalibe yu baax yii sàkku ngërëm ne sàkku ngërëm ci loolu rek la ñuy sax ne ci loolu rek la ñuy sax ne ñu ngi sàkku nag ngeen ñaanal nu mu mën a tol ne nu mën a tol xeeb na xeeb nanu ko liggéey ne liggéey bi ñun fuñ ci jàpp fuñ ci jàpp ak fuñ ko indi ak fuñ ko indi nanu xam ni xeeb nanu ko te Serigne Saliou te te Serigne moo ni cheikh bi moo cheikh bi. ku sant. ne sant. ñu dolli ne ne ne ñu dolli la. ak cant ak cant. moo ko xamal Cheikh Béthio. ne Serigne Saliou moo ko xamal Cheikh Béthio. waaye. waaye waaye cantaakoon bu mag bi. mooy borom bis bi mooy borom bis bi di Serigne Touba. kooku ñu woo. ne kooku ñu woo. ci sant sunu borom nee na nag ci sant nag sunu borom. ci bernde ci bernde. ganaar ba ci gëléem ba ci gëléem. tawféex ju rëy jooju nee tawféex ju rëy jooju bis bii ku ko xamoon li mu làmboo ci bàtt li mu ci tawféex nee li mu làmboo ci tawféex ak xéewal buñ ko defoon buñ ko nit ñi ko àddina bi xamoon kenn dootu fi xaj nee bu ko àddina bi yëpp xamoon kenn dootu fi xaj dëgg la gis nañ li nga ciy gis nañ li nga ci def nee yaa ngi ñu ciy solo nee yaa ngi ci def sa doole nee na lu nu xawle. nga ñëw nga ñëw. te booy ñëw te booy ñëw. la ca war lépp waaye waaye la ca war lépp. nee na nga def ko. sa cofeel ci man daal. nee daal sa sa cofeel ci maa ngi koy seedeel bokki taalibe maa ngi koy seedeel bokki taalibe yi. ndeysaan. yàlla nañu ko Serigne Touba jàppal. ah nee yàlla ko Serigne Touba jàppal. te téyel ñu wax leen amin waay. ne ne ba li ma ci bëgg. Serigne bi defal ne Serigne bi defal na ko. ne wax jaa ngi noonu. وللمؤمنين والزبور وجاءت كل بحمد وسكور إلى وللمؤمنين والزبور وجاءت كل بحمد وسكور إلى وللمؤمنين والزبور